tiit saar wàll ci lim jiin di bataaxal bi yàlla may pool mu bind ko tiit man pool maa lay bind man miy jaamu yàlla ak ndaw li yeesu kirist yónni ngir xamle ngëm gi lal yoonu ñi yàlla tànn te yokk xam-xamu dëgg giy meññ ragal yàlla mu sukkandiku ci yaakaar ju dëggu ji ñu am ci dund gu dul jeex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 bàyyi naa la ci réewu Kret ngir nga mottali la desoon ci liggéey bi te samp ay njiitu mbooloo ca dëkk bu nekk ñi ma la ko sante woon njiit nag nii la war a mel war naa ñàkk ngàññ yem ci benn soxna am ay doom yu gëm yu amul baatu gannaaw ci yàqute mbaa déggadi ndaxte kuy sàmm mbooloo mi mooy jëwriñu yàlla kon warula am ngàññ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 fuqle te te li mu wax dëgg la looloo tax nga war leene yey bu wóor ci seeni bàkkaar ngir ñu am ngëm gu wér te bañ a topp léebi diine neen yu yawut yi mbaa tegtali nit ñi dëddu dëgg ñi sell seen lépp a sell waaye ñi sell di te gëmadi seen dara sellul du seeni xalaat du seeni xel dañoo mbubboo xam-xamu yàlla waaye seeni jëf weddi na ko ñu sikk lañu te déggadi bëtale ci jëf lenn lu baax